ngi leen di nuyu yéen ñëpp ñi nga xam ni ñu ngi fi teew di leen gërëm ci teewaay bi di leen sant di gërëm journaliste yi ci seen présence bu am solo bi ah di ci jiital le doyen Cheikh Anta di ko nuyu di nuyu conseil yi nga xam ne ñoo fi nekk yëpp ak adjoint bu maire yi fi nekk yëpp ah, tey jii nag dañoo ñëwoon woote point de presse bi ñun le bureau municipal commune Thiès Ouest li tax ñu woote ko nag mooy dégg ngeen fan yi le 20 janvier bi passé que ni le bureau municipal de Thiès Ouest a été euh, changé pourquoi ndaxte euh, boo xoolee bureau municipal bi paritaire woon bureau municipal bi suñu benn con membre conseil attaqué ko en justice bi ñu demee tribunal ñu àtte ni bureau bi pariteerul dañ ko war a tëggaat ñu def appel ñu àtte ni encore pariteerul dañ ko war a woote waat kon nag maire woote le 20 janvier bii passé ñëw ñu woote ko comme noonu la ko waa Thiès nord bu gërëm su lay jóg defee woon te noonu la ko également incha allah waa euh, Thiès est bu maître Ousmane Diagne di ko defee ñun nag ñu woote korok suñu bos ma bëgg ñëwaat ci déroulement vote bi ni mu demee ak xëy na lan moo tax yenn changement yi juddu fa vote bi déroulement bi ñu ngi ko def koroog le vingt ci kanamu sous-préfet bi ñu ñëwee ñu am quorum y avait 68 présents y avait également euh, huit procurations bi ñu defee vote bi ba pare devant le préfet ak euh, scrutin avec urne yëpp euh, bi ñu njëkk defee dépouillement ñi fi nekk di adjoint te ñu fal leen ñu ngi am quarante et une voix beneen bi am trent cinq voix ah trente cinq voix ñu am benn voix boo xam te ne également bu euh, bulletin nul la bi ñu xamee ni résultat yi demee ne noonu ñoom ñu jóg ni condition yu vote yi amul dañuy génn ndax booba gañe nañu ba Euh, maire toog ni toog leen bu leen neexee sax ñu woote waat comme la messe était dite ñu ni noonu dañuy génn les condition n'étaient pas réunies te mooy fàttali leen ni leen le scrutateur bi nga xam ne moom leen tegoon foofu mu tudd Fallou Ngom il est du Pastef mun naa wax ci camp bale la bokk moom moo doon compter bulletin yi moom moo doon génne bi bulletin yi génne soixante seize bulletin euh, lañ génne ci urne bi compté ñu prétexte ni am na benn bulletin vert boo xamante ni moo ëpp loolu lañ prétexté jóg génn waxtaan génn nañ dem ñibbi ma leen xamal ne nag vote bulletin vert boobu nga xam ni moo ëpp mën na jóge ci enveloppe bi nga xam ni moo wadd bulletin yi boo koy jël ñaar ñooy taqaloo souvent boo demee di dëpp dépouiller mën nga dépouiller teg fekk ki doon dugal ci enveloppe bi parce que dañuy tudd ñaaral ko mais loolu ci mën a dégg loolu moo am devant le préfet ñu gagné am quarante voix ñoom ñu am trente cinq résultat yi nag bi mu amee ñoom ñu génn comme ni ma leen ko waxee gerte dem ci biti taxaw di wax li tax nag may ñëwaat ci loolu kon korom bi moom atteindre nañ ko ba pare bi première bi jotee bi ñu continuer dañu continuer def suñu vote deuxième adjoint bi ñu koy voté y avait quarante présents trente neuf ñoo am lañ voté pour benn bulletin blanc bi ñu continuer vote yi troisième ba septième adjoint chaque fois trente neuf voix la ñu am plus que la moitié conseil xam nañu 76 la 39 voix chaque fois moom moo voté adjoint moom moo fal devant le devant le sous-préfet mu pare ñu entériné suñu vote ñu dem donc déroulement jour vote bi noonu la dem donc may félicité dëgg yàlla ñi nga xam ni ñoom la ñu tey di félicité également euh, conseil municipal Thiès Ouest la majeure partie ndax ndax li tax loolu. mën nañoo seetlu ni ñaar daf ci am benn bi mooy dañu voté waat ndaxte euh, bureau bi paritaire woon beneen bi mooy ni euh, la majeure partie des conseils dañu sanctionné yenn comportement yi yi nga xam ni moom la yenn adjoint maire yi amoon ndax am nañu génn ci bureau bi am ñeneen ñu dugg li waral loolu nag mooy conseil bi dañu sanctionné comportement yenn adjoint au maire yenn adjoint maire yi daaw ñu ñëw dañu boycotté woon systématiquement le bureau municipal prétextant ak différent avec le maire kooku seen problème la mais adjoint bu fi nekkee commune bi la fi nekkal dañ ko woote loolu mu leen wax ni la maire falul ay adjoint adjoint dañ koy woote kenn du ko nommé conseil yi ñoo koy woote bi conseil yi gisee comportement boobu a plusieurs reprises heure bu ñu du dem ci activité mairie du ñu également ñëw bureau municipal systématiquement lañ ko boycotté conseil yi ñu ngi nii sama gannaaw wax nañ ko budul benn wax nañ ko budul ñaar wax nañ ko budul ñett ils ont sanctionné comportement yooyu nga xam ni jàpp ñu ne war na indi euh, war na war na euh, adjoint au maire euh, am na yeneen comportement yoo xam ne xëy na maire dina ci ñëwaat ci vote budget yi ni ñu ko doon defee ci blocage yu bëri yoo xamante ni ñu ngi ko doon def conseil adjoint yi yàgg ko. conseil bi yàgg ko xeex yàgg ko bañ donc kon pour euh, terminer sama euh, prise de parole damay jëlu rek di wax ni leen ah, le conseil municipal de Thiès Ouest ñun les adjoints ak les conseils nous renouvelons notre confiance à notre maire Mamadou Djiké qui est un homme juste un homme valeureux un homme courageux nit koo xamante ne la ay valeur ak ay vertu kese moom la ñun ñi fi nekk di adjoint yi di ànd ak moom di ko jàppale bokkuñ seet kenn parti man mi ay deuxième adjoint je fais de des FDS les Guelwaar at bokkuma pur kii bokkul pur bokk gis-gis la bokk kii APR la bokk kii PRP la bokk kii moo bokk pur kële Assane lay mais Pastef la bokk. di jiital ci sama nuyoo monsieur le maire le docteur Mamadou Djita maire de la commune Thiès Ouest di nuyu conseil municipal yi fi nekk di nuyu population bi di nuyu presse bi di nuyu aussi les agents municipaux yi nga xamante ne ñu ngi fi man nag may première adjointe au maire tudd Mame Fama Dioum bokk parti bu ñuy wax PRP euh, parti républicain pour le progrès diisoo ak askan bi bu le président Déthié Fall man nag euh, maay euh, adjoint chargé de la commission sociale depuis bi ñu installé ci mairie bi man maay adjoint bi nga xamante ni man maay gëstu man maay vérifier man maay xool ndax social bi teg nañ ko ci yoon wala teguñu ko ci yoon bi ñu bi ñu installé dañu ñëw ci mairie bi pak moo ñu fi njëkk a fekk bi loolu amee. Euh, d'habitude dañuy dem euh, ci paroisse yi ak ci Caritas yi ñoom ñoo ñuy jox ay liste liste yu ñuy jox suñu ko joxee dañuy ñëw teg ko saytu ko xool ko ku ci nekk euh, ñu jox la sa enveloppe bi ñu la war a jox euh, bu pat jàllee dañuy ñëw ci koor koor dañuy joxe suukar dañuy joxe ceeb mais naka lañ koy joxee premièrement dañuy ibbi ay dépôt dañ koy bind dañ koy afficher dañ koy tas ci réseau yépp dugal ko ci panel yi nekk fii yépp ñu ni leen képp ku nekk Thiès bokk ci population Thiès Ouest ibbi nañ ay liste ñëwal ci mairie bi nga déposé bu ñu ñëwee des fois dépôt ñu ibbi ko trois jours wala ñu ibbi ko 2 jours bu ñu ibbee dépôt yi bu ñu déposé ba euh, nombre de jours dépo bi jeex ñu dépouiller nan la ñuy dépouiller président commission sociale dafay toog présidente commission sociale dafay toog rapporteuse dafay toog ak membre yi nga xamante ni ñoo nekk ci commission sociale dañuy toog su loolu amee ñu dépouiller nan la ñuy dépouiller ak euh, par rapport ak 18 euh, quartiers yi nga xamante ni ñoo nekk ci commune bi ku nekk xam ne ni Thiès Ouest 18 quartiers moo fi nekk quartier bu ci nekk. dinañu tànn selon les critères yi nga xamante ni dama jot a maire koy wax ay critères am yu mu wax mooy ne ci jigéen ñi ëpp en plus na nekk ñoo xamante ni duñu nekk ay ndaw duñu suufee tuuti ci seen at nañu xaw a nekk ay ñu am ay at yu xaw a kawe tuuti bu ñu tànnee ba pare ci critères yooyu euh, dañ koy jël duñu yem foofu dañ koy jël yóbbu ko ba ci maire ne ko ñii lañu tànn mu defaat vérification des fois sax ñu vérifier mu ni noonu lii ni ngeen ko tànnee baaxul parce que quartier bii moo ëpp quartier bii quartier bee moo ëpp quartier bee kon nañ ko xool selon quartier yi ni mu tëddee ci Thiès parce que am na quartier yoo xamante ni ñoo ëpp ay nit fii ci Thiès kon quartier yooyu ñoo war a ëpp ci social bi ko defee dañuy demaat saytuwaat liggéey bi ñëwaat jox ko ko mu vérifier ko ba pare suñu paree ci loolu ku nekk euh, xam na ni dañ koy yóbbu ci secrétaire yi nga xamante ni ñoo fi nekk ñu saisi ko buñ ko saisee ba pare dañ koy jël maire bu vérifié waat ko ñu yóbbu ko CPRS CPRS ñoom ñooy gëstu lépp lu jëm ci wàllum social bu ko CPRS gëstoo ba pare daal di koy validé bu ko validé ba pare indi laatal ñu ko ñu soog a commencé si suñu liggéey bu fekkee ni ceeb bi la euh, dinañ ci jox ñu bëree bëree bari ci ñu ñuy distribuer ceeb bi mën naa ci wax euh, ñoo xamante ni tey lu mel ni Euh, les délégués de quartier les imams les habitants du quartier gis nga li may wax ni social lu mairie Thiès Ouest ni ñu koy doxalee amul benn mairie buy doxalee noonu social parce que kër yi nga xamante ni dañoo wër mairie bi fu ci nekk commission bi dinañ fa dugg kër bu nekk dinañ jël seen i pièce d'identité dugal leen ci social kër goo fëgg ni ko jox ma sa pièce d'identité pour borom kër gi dañ lay jox ceeb wala dañ lay jox suukar pour social nga ni ba ma fi nekkee ba léegi musuma ko am c'est la première fois loolu am te mi ngi amee ci docteur moom lu jiite suñu jógee ci loolu dañu jël liste CPRS jël liste les handicapés jël liste sourds-muets yi nga xamante ni dañ fay nekk kon maanaam suñu social beddi wuñu kenn ñëpp lañ ciy boole couche yëpp lañ ciy boole les délégués de quartier les imams dañ leen di jox suñu jógee ci ceeb ba suukar ku nekk xam na ni tamit euh, programme Thiès wala programme dëkk bi sax laay wax dafa bari te maire sollicitation yi ko nit yi di sollicité bari na bari waay boo xamante ni ni yow mënoo sax comprendre gis nga ceeb boobu bu ñu ko joxee même bu desee 5 6 7 8 ak lu mënti des dañ koy téye tey maire dañuy ñëw ni ko am naa dëkk wala ñu ñëw ni ko am naa ay jàng kii ñëw ni ko tudde nañ ma lii tudde nañ ma laa mais day yëkkati ci ceeb boobu jox leen ko mais yaakaar naa ne jox boobu mu leen koy jox mais ci population bi la dellu duggul ci biiram duggul ci biiru keneen ci population bi la dellu ndax ku wax social ku wax mairie wax xam ne social moo fa ëpp doole suñu jógee ci korité dañuy dem ci tabaski tabaski tamit même chose lañ koy defee dañuy ibbi war les listes jaarale ko fi ñu ko war a jaarale suñu paree ci loolu euh, ku ne xam ne ni mairie dafa am billetteur billetteur bi mooy jëli xaalis bi bu jëlee xaalis bi day ñëw ak le comptable ak président commission ak man mi nga xamante ni mooy saytu lépp luy social fii ci mairie bi bu ñu toogee ñoo koy dindi benn par benn enveloppe par enveloppe monsieur le maire le docteur Mamadou Djité xamul xaalisu social mairie Thiès Ouest ban couleur la am xamu ko du ko gis dañ koy joxe ba mu jeex tàkk xamul couleur bi naka la mel am na jour bi directeur bi ma ni mais madame la maire man damaa jaaxle ma ko lu la jaaxal mu ni ma yàgg naa ci maire yi mais monsieur le maire musuma gis ku mel ni moom. mu romb ko fuuf parce que foofu la ñu population Thiès bi xaar di nuyu les conseillers municipaux yi nga xam ne ñoo fi teew di nuyu agents yi yi nga xam ne ñoo fiy liggéeyee. di nuyu population yi ñuy si woote bi di nuyu presse bi maa ngi toog ci léegi ma ni ko waa presse bi moom ñun yàgg nañoo xam naa xeer bu may sànni la après xam naa dinañ fay ma ni liñ fi nekk yëpp liñ fi inauguré yëpp mosuñu am presse bu doy nii mais tey moom <laughs> xaw ma lu xew ba ñoom ñëpp ñu wuyu si. <laughs> nee na daawoon daawoon leen woo. ah daawoon leen woo Ablaye Ablaye am nga liggéey ba. Ablaye mooy chargé de com Ablaye tu as du travail donc bu ko defee wax dëgg yàlla lii la dañ bëgg bu ñu xewlee ngeen ñëw ñëpp teew parce que li ñuy def pour Ceesuwaay yi dañu bëgg ñëpp gis ko donc ñu ngi nuyu ñi ñuy déglu ñi ne ci kër yi te li nga xam ne ñoo ngi koy waxtaanee après ñoom ñëpp dinañ ci jot bu ko defee li waral jotaay bi je pense ñi ma jiitu wax ko ba pare Ferencu xëy na man li ma ci bëggoon dolli mooy olof daf ni ku rendi xar il nga bàyyi ko mu wéqatu ñi ngeen dégg ñuy wax dafa am loo xam ni mooy metti seen xol te du faju ilaa yow mi di mooy bi ma fi toogee ba léegi sa groupe fexe nañ lu ne pour bloquer ma pour ma bañ a liggéey Assane am na lu mu ci rappelé léegi vote budget bu mujj bi ñu doon def mooy troisième tentative bu ñu jéem pour bloquer délibération benn troisième tentative mosu ngeen dégg est-ce que ñun ñu wax ko est-ce que mosu nañu bi di leen wax ni ñoom loolu lañ def mosu leen ko dégg wala boog en tout cas ñun mosuñu woote. naan am na ñu ñu àndaloon ci coalition ñu ngi jéem a bloqué suñu budget kon kay ku njëkk a ruuma ko da ngaa lan moo tax ñu changé suñu bureau municipal mu mel ni àdduna day bëgg a tukki deux ans yi nekk yëpp ci gérer leen tolérer leen supporter leen ci laa nekk lu ne def nañ ko nag donc booy jéem. di jéem di tëlee nga xam ne li ngay jéem du yoon jaaduwul nga taxaw parce que loolu mooy nit intelligence jéem nga première tentative jàllul conseil municipal bi ne la d'accord nga jéem deuxième jàllul muy budget bu daaw bi deux mille vingt nga jéem bu ren bi jàllul mais nga war a taxaw yaa xëy xam ne li nga nekk du dëgg mais nga ne di nga foncer ba mbir bi c'est ce qui est arrivé man nag. bi ma demee ba constaté lii ay la yéwén ñii damay sonn rek nga mënu ma leen satisfaire ci laa jël sama responsabilité j'assume le changement du bureau municipal je l'assume entièrement kat ñi ci génn mooy kat yi nga xam ne dañu taxaw bëgg a toog man fi ma toog te man fi ma toog teguma fi sama bopp yàlla moo ma fi teg jaarale ko ci nit ñi ñoom su fekkee dañu bëgg nekk maire nañ xaar ba mandat bi jeex ñu dem ci askan yi wax ak ñoom bu leen askan yu fale ñu ñëw dox doxal askan wax na ko léegi ñi ma jàkkaar loolu ñëpp ñu bokkoon coalition foofu lay démarré ci coalition bi Yewwi parce que man j'étais le candidat di Yewwi Askan Wi niñ ma choisir Assane wax na ba ñu tànnee ki nga xam ne mooy sama premier adjoint jiite mbir mii ngeen gis yëpp lam ca def ñi fi toog ñëpp ñu bokkoon coalition fekke nañ ko ba loolu jàllee ñu fal ñu man ak moom kese yàlla tiim ñu nee naa ko li nga nekk ngénn ci dañ tourner page bi fal nañu dañu war a ànd liggéey nañu liggéey te ñi nga nekk woon ñëpp wax xam nañ ko ñu ne woon ci coalition bi doon campagne bi ñëpp fekkee nañ wax gis nañ mu ne dama bëggoon nekk maire comme yow lii la ma tontu garab mais frustration boobu man lu ma ci mën ma bëggoon nekk maire comme yow mais nekk maire man sa jiitu na sama juddu sama destin la ma war ko nekk ma nekk ko te depuis nekk maire lan la ban ban ndomba tànk la boo xam ni jar na ngay duggal àdduna pour nekk maire yàlla def na leen di teral la mais teraanga gënul rëy nekk nit amul beneen teraanga bu ëpp nekk nit ndomba tànk yi ñu yor day jeex rek cinq ans la même bu ma fi deux mandats dix ans damay dem sama yoon après keneen ñëw Aliou Sow moo fi nekk ma remplacé ko keneen na dugal àdduna jar na nga ni tey il faut ma ak lu la mooy coow li ñi ci àndal mooy ña taxawoon mooy li wolof naan noonu du tuuti. ndax ku mer ca ngay jëm te ngeen dégg gën ci ñaaw làmmiñ jour bañ may installé premier jour bi laa wax premier jour devant tout le monde ci la ñoom dañoo boykatu jour boobu tooguñu sax ba mu jeex loolu je parle devant tout le monde bi ñuy installé jour bi laa wax de dara xewagul xawma ko xawma ko c'est la première fois muy muy doo ko gis nit ki ko doo ko gis xamagoo ko xamagul lenn fu mu jëm ci la boycotté jour boobu kon su boycotté rek bët bi dem ànd ak ñoom loolu lu bees donc je pense que yi ñu tudd sàcc la et cetera man vraiment wax naa ko Ablaye nii di sama chargé de com yàgg naa ko wax gis nga man amul benn ligne bu nekk ci budget yi ñu ne dërëm yi quarante quarante millions wala cinq millions fii la jëm benn dërëm ma ko ñu jël du ko dugal sa poche bu dul nekk ak marché bu mu mënti doon la marché yi ñu tudd yëpp nag laa la wax amul benn dërëm boo xam ne fii tin sell na ci dugg sama bos man ruus naa loolu jomb naa loolu parce que ñun dafa am askan bu ñu bokk c'est très important am fu ñu yaroo am fu ñu yare am lu ñu yare man jomb naa loolu jomb naa man président parti bi ma bokk di dégg naan jiite dañ koy sàcc na nangam alalu askan wi jomb naa lool ku xam suñu président Bañ suñ Moustapha Sy ku ko xam ci rigueuram man jomb naa lool moo tax pour gàttal wax ji dama comme loolu man la man la engagé personnellement man la ñu taqal ñu dama sàcc démb la déposé sama ci procureur de la République pour diffamation et dénonciation calomnieuse bu defee ñu àtte ñu ci kanamu gor yi ci kanamu àdduna su fekkee ñoom dañ koo ñeme man mi nekk ci dëgg te xamuñ ci dëgg laa taxaw du ma li laa yomb ñu du ma